Sénégal tey fii mu toll l'état ak opposition dañoo war a wax. dañu war a waxtaan. dañu war a waxtaan obligé c'est une obligation dañu war a waxtaan mënuñu dem ci élection ci situation bi mënut a nekk te encore loo xam ne wax naa ko danaa ko wax àtte mooy lan damay justice. Mm-hmm. suñ ne ñu ngi àtte dëkk bi nekk ci tension war nañ ko xoolal àtte baatu àtte mooy lan atte dafa war a bu dafa waroon am bu coow amee ñu ni ña ngay atte rek dëkk bi daal je suis pas je suis de de mon pays de ça rafetul. jàpp nga gën a naqari laaj nga ma ko fii ma ne li ma gën a naqari ci Sénégal mooy loolu. laaj naa la daaw loolu nga ma wax même chose laa la waxaat. non non non euh, c'est pas la même question en fait euh, aujourd'hui est-ce que yow ci sa gis-gis jàpp nga ne euh, dafa am ay jéego ngir museler. le camp de l'opposition je réserve ma réponse ah. parce que c'est une affaire boo xam ne nii affaire justice la je réserve ma réponse du man maa ci war a wax li ma ciy wax amu ci benn effet mhm. man damay toog fii su ma waxee damay wax wax bu am njariñ ah damay wax wax bu am am njariñ nit ñi dañ ne waxal lu am njariñ wala nga noppi mhm. Mansour rapidement ànd naa ceeg ànduma ceeg dañ koo tooñ ak tooñu ma ko sama yoon li ma mën a wax mooy nañ fexe Sénégal ba élection du fi indi fitna